jigéenu senegal jaay yéen a ngeen gàcce nga laama ndax yéen ngi bu baax baax askan ndax xam ngeen ne jamono changé. Ici à Sébikotane, depuis trois ans, nous fêtons cette fête. La première année, nous l'avons fêtée en partenariat avec euh, l'Association des juristes sénégalaises. Une association de juristes composée uniquement de femmes. AJF, avec Madame le procureur de l'UFIS, qui nous avait fait une très belle prestation. Avec une autre dame qui venait, elle, de la boutique de droit de la Médina. La deuxième année, nous avons fait une seconde cérémonie, c'est-à-dire l'année dernière, 2021-2022. Nous l'avons fait donc en partenariat avec euh, Amnesty International. Donc c'est la deuxième année consécutive que Amnesty nous vient en partenariat technique et en partenariat financier, puisque c'est eux qui ont financé presque les 80 à 85 de cette journée. Assalamu di leen nuyee ñëpp Nous ñu gisee ñi ñi fi ITM de technologie médicale euh, bu Sébiko Kotar tey jii dans le cadre de célébrer la journée internationale des droits des femmes qui est tenu chaque le 8 mars dans l'établissement te na boo ñu gisee ak sama délégation bu yi nii donc mooy rafeti yi macha allah lii nag day wane nii ba si jigéen ñi la donc ñu leen siy remercier di si félicité ndax bu lépp yembee rek jigéen ñi tax di remercier aussi suñu yaay yi ñu bàyyi kër ak suñu papa yi doon tey ñoom tamit si lañ bokk. di wax rek ni comité bii ñu tëral nii ren jii maay président bi en tant que Kalidou Ndione di leen wax ni rek euh, benn ambition la ñu am mooy liggéey ba yemal suñu situation yëpp kanam.

Ici à Sebikotan, donc fini à Sebikotan, euh, particulièrement à l'école Biniwa ITEM tey je journée bi en partenariat donc avec Amnesty International ITEM dafa organiser une sensibilisation donc cancer du col de l'utérus à cancer du sein ci loolu nag waxtaan euh, joto am ay échange donc ay qui ont yu am ci de se faire. et japp nañ ni am euh, plus de euh, jigéen yi nga xamante dinañ dem au niveau des structures sanitaires pour faire un def dépistage donc des du cancer donc par rapport au cancer du col et ak ak parce que je pense que échange bi amoon solo et que participation aussi ça a été au rendez-vous et que machallah donc euh, les étudiants donc les femmes au niveau de Sibikotan donc ont bien répondu par rapport à l'invitation de l'école ITEM merci beaucoup. Wow, donc nous euh, avons rek ni que 8 euh, mars 2023 Nous avons consacré les xamé ñu droit des femmes partout dans le monde.

am ben partenaire technique ak financier bo xamé ne que ñu ngi koy tuddee Amnesty International ñëpp ko xam muy organisation bo xam lay xex ci walu ak ak yelef doomu adam ñom tamit ils nous ont accompagnés ce matin. Euh, li nga xamee ne que nag moom lañ doon euh, euh, maanaam liggéey tay ci kër gi moy def ben journée de sensibilisation sensibilisation bi ben sage femme bu ñu tuddé madame Timéra ah, ak ben docteur bu nane docteur Babou ñom dé waxtan nañu bu baax a baax ci li nga xamné que mom nañ tuddé col euh, cancer du col de l'utérus ah donc sensibilisation bi ay ay étudiants ak ay ay étudiants yoo xamné que ay sages-femmes ay infirmiers ay assistants infirmiers ñom nañ ko doon euh, ñom lañ doon formé ñoñu suñu paré ñom ñoo dugg ci gox-goxaan yi nga xamné que ñoo wër Sébikotane pour tas xibar bi nga xamné ne que euh, par bon peut-être des convois des convois de sonorisation ah dinañ tas xibar bi mais aussi amna ben activité d'évaluation évaluation xamné xam nañ ko activité d'évaluation bobu euh manam dina nek euh, dépistage du cancer de col de l'utérus ok alaykoum guddee bëccëg mën ngeen ko guddee guddit mën ngeen ko guddee tawit mën ngeen ko waaw waaw jigéen